طب القلوب ودوائها وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب نسانت يالا جلتي سانغو سانغي صلى الله عليه وسلم نيو دي زياره mboolem auditeur ak auditrice su rajo Safina FM 98 Kadugi 2 kaddu gi bàyyi ko fii ci Scat Urbam Grand Yoff di nuyu di ziyaara bu baax personnel bi nga xamante fa bi joxe joxin wu rafet ñu di jox di jaare la nuyoo bi ci suñu directrice sayda Ñima Ba Gange di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla tabaraka wa taala tawfiq ak aafiya di ko ñaanal di ko ñaanal borom këram fa tabarakallahu di ñaanal njabootam itam yàlla sàmm leen def leen ay mag bi jaahi taaha saydi rijaali nuyu suñu mbokk yi soog a génn léegi ci émission bi ëttu ndaw ñi tabaarakallaahu sëriñ Abdoulahi Diop ci émission bu am solo bi nga xamante ni moom moo koy présenté ànd koog Makoura ak Soxna Aida de émission boo xamante ni tabaarakallaahu émission bu am solo la te émission buy vaincre stress stress la ñu ci defaale njàngale yu am solo tabaarakallaahu yal yàlla dimbali ndaw ñu bari ñu am chance di ko déglu waye di beral nuyo suñu serigne suñu soppe suñu xarit suñu bay alxaaji Ceerno Xaamidu Yoro Baan tabaarakallah ahsanul xaaliqina ñaanal ko yàlla itam yàlla sàmm ko yàlla dolli ko sutura yàlla dolli ko wér te guddal fanam lool macha allahu taala ba mébétam ak sumbam ci liggéey bi yàlla àggaleel ko ko fu weesu njortam ci barke sëriñam barke baayam alxaaji cerno sayid mohammad bachir taal tabaarakallah ahsanul xaaliqiina di nuyu suñu mbokk mi ñu fegool ci liggéey bi di sëriñ Samba si Samba si ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax ne ci xarale gi di ko ñaanal di nuyu maam bu baax moom itam dégg naa mu sànni xeer ba tàyyi ni Pafal day tàngal ceeb rek waaye koo xamante ni xam na ci loo nekk mu war la solal rob avocat di la plaidel defatu ko lu may tabaarakallaahu di xëpp ci suuf ci cere ji loolu xam naa daañu ko lijjanteeg moom nag di nuyu auditeurs yëpp ak soppe yi nag di leen ziyaara fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiina rawatina ñi bàyyi xel seen émission siratal mustaqim waxtu wu nekk tabaarakallaahu bu ñu déggul rek def yitte xool ci lu ñu nekk yàlla nag mooy tënk jaam noo xamante ni ci masiatul ilahiya rek la jaam di dox jaam moom du ni ko soobee lay doxe waaye ni soob yàlla tabaaraka wa taala ni lay doxe di nuyu sëriñ Birane Mbaye bu baax tabaarakallaahu di ko nuyu gaa ñi dañ ko xamul moo tax ñu koy tooñ mais sëriñ la ndax cofeelam ci sëriñ Babacar si radiyallahu anhu rek yéegën a maqaamam fu ne waaw kafam ak reetaanam tabaarakallahu ndeysaan macha allahu taala ak yaram ak tegginam nag yàlla mooy dogal lu ko neex la maam Cheikh Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu wax yàlla rek ni ko turidu rabbana muridu wa uridu wala yakunu rabbi gayra ma turidu wala gayru ma turidu waaw yàlla man day maa ngi nii damay bëgg waaw turidu rabbana uridu turidu rabbana muridu wa uridu waaw yàlla tabaraka wa taala day bëgg-bëgg yoo xam ne day ànd ak dogalam bokkut ak bëgg-bëggu sàmb si bëgg-bëggu sambasi si du and ak dogalu sàmba waaye yàlla bëgg-bëggam day and ak dogalam su ko defee bu sàmba bëggee rek bëgg-bëggu yàlla day mëdd bëgg-bëggu sàmba sayyidul haji mari ni turidu rabbana muridu wa uridu waaw da ngay bëgg mu and ak say dogal man malik may sabablu rek boole ko sama bëgg-bëgg wala yakunu rabbi ghayru ma turidu te man nag Malick Fawad man gëm na ni luma ma bëgg bëgg bëgg bëgg lu yene ji rafet rafet mënut a nekk mukk dara munul nek lumay li nga bëgg yow yàlla تبارك الله أحسن الخالقين كن اللهم اجعل ما أشاء موافقا لما تشاء كي لا يسير ما أشاء مخالفا لما تشاء وما أن حتى أشاء خلاف ما الله يشاء لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء فالطف بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فتبارك الله يلا دفا بغ دومو ادم بيند كو ديف كو موي كيغا خامتني موكاي ريبريزانت سي سوف لك لك سامبا غيس كو dafay bëgg nekk fu nekk waaye yàlla rek moo am pouvoir boobu wasia kursi yu samawaati wal arda su ko defee fi nga xamante ni Pape Fall daf fa war a nekk te yàlla dogalul mu yore jëmm ju fa war a mën a nekk ndax benn jëmm la maam Cheikh comme ni mu koy defee bu fa nekkee rek tabaarakallaahu day dem ba mel ni absence pap Fall sax du feeñ la même chose non la Pape Fall wara def pour téwal soppeem fa nga xamante itam nekku fa su ko lolu moy mooy bo boo ak mom ci bir mbolo mu sagal la bo mu téwal la samal la sa der rajo Safina Radio la bo xamni fa tabarakallah yalla mo dogal lim ñu ay doomu aadama yoo xamante ni cofeel dox na suñu diggante te yàlla rek tax bari na ba rajo bi ñun yoreel nañ ko njukkal ndax xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum suuban wa qabaila li jëflante bu baax boobu ñuy deflante bil maaruf tabaarakallaahu xamante bi dox suñu digganteeg ñi nga xamante ni yàlla nga ko jaarale ci kàddu rajo gi rajo bi toll na foo xamante ni bu doon suñu jëmmi kese rek yàlla mën na dogal du ñu fa mën a àggale suñu xameek doomu aadama yi kon ñooñu amuñu seen payit ci cofeel gi dox suñu digganteeg ñoom ba buñ ñu gisul dégguñu ñu tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina ñuy def effort pour di ñu dégg di xam ci lu ñu nekk mu ñul leen a fay yàlla nañ leen yàlla fayal bi jaayi taaha seydi rijal tabaarakallahu asatise yi ne ci rajo bi yépp tabaarakallahu ñu ngi leen di nuyu seen liggéey rafet na yàlla nañu leen yàlla fayal bi jaahi seydil wara sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liñ koy wax di ko joxe exemple bari na dafa formé woon saxaaba yi formation boo xamante ni ñoom ñëpp kenn ku ci nekk amoon nga ci sa morom kóoluteef goo xamante ni day dem ba tabaarakallaahu sa moroom ngay gën a wóolu ko sa bopp dégg nga toujours ñuy joxe exemple ci test bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jéem a testé saxaabatul kiram yi am loo xamante ni mook Seyduna Abubakar Siddiq ñoom ñoo ko seqoon ak yenn ci saxaaba yi waaye ba ñu demee ba yonent bi sallallahu alayhi wa di leen seetlu bi mu woowee Seydina Aboubacar Saddiq ba wax ko ko Seydina Aboubacar Saddiq dañu ko li ñu doon waxtaanee bu fekkente ni dafa senn génn ci suñu biir ba dem feneen jàpp naa ni du kenn ci yeneen saxaaba yi jàpp naa ni kon man abu Aboubacar mii la war a doon Samba yaa ngi dégg loolu waaw yonent bi la Seydina Aboubacar Siddiq ni ko li ñu doon waxtaanee à huis bu sennee ba dem feneen ba ñeneen jot ko jàpp naa ni day du kenn ci ñoom du Seydina Omar du Seydina Ousmane du Seydina Ali bu sennee daal ba rëcc daal xam naa ne boo moytuwul ci man Aboubacar Siddiq bii la tabaarakallahu day engagé benn toor pour boppam pour mën a blanchir ay nawleem wóolonte boobu demoon na itam. bi ko Seydina Omar Omar déggee dani ah gëm naa ni de kon boo demee man la waaye du kenn ci gaañ yi ndax Aboubacar Siddiq mi aminu sikri aminu Seydina Muhammad la sallallahu alayhi looloo waral nag kenn ku ci nekk ci seen liggéey ak seen diggante demoon ba boo tiimee ñam sax tibb boo tibb ba xool ko ba xam ni tibb bii jekk na ci gémmiñ te mën na dalal xel ci biir ni nga koy yéenee sa moroom mi la yàlla booleeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ëpp ni nga koy yéenee sa bopp fa tabaarakallahu noonu la liggéey bi demeek suñu mbokk asatise yi nekk ci rajo bi yépp tabaarakallahu kenn ku ci nekk ñu ñoo xamante ni nag yàlla dafa dogal dañuy am ay ñol-ñol ci suñu diggante ñun ñëpp soppante te yàlla tax ñëpp yàlla xam na loolu rajo Safina mooy rajo boo xamante ni dajale na macha allahu kàngam yoo xamante ni Pape Fall ci gën a tuuti bopp moo ci gën a néew xam-xam waaye dajale na ñoo xam itam kenn ku ci nekk sopp nga sa moroom cofeel goo xamante ni duñu dégg fenn ñu naan. personne personnelu rajo Safina bi nangam la ñu waxee nangam la ñuy lii déedéet loolu nag bu yàlla dogalee mu mel noonu ci njiit yi la rek tabaarakallaahu ndax alal day nuru boroom alal day nuru boroom boo defee yonent bi sallallahu alayhi wa ñun duñu dañ mukk di référé wu ci njàngleem di ci jël ay exemple benn muñam jéggi woon na fu ko nit mën a àpp moom yonent bi te man ko faa takk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam njéggaleem xam nga ku dem ba jéggal wax siyu wax siyu xam nga wax siyu moo rey sayyiduna Hamza moo ko rey reyin wu ñaaw ci xaswatu Uhud te bi mu koy rey dara intéressé wu ko woon ci xare bi lu may daaneel Hamza ta Hamza jamono bobu mo nekkon yaakaaru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ci armée islam bi yépp donte amon na ay jambar waye Hamza jambar la won yaakar la won waye teewul itam mu am ci nonu yàlla yi ño xamanteni daniel Hamza jaral ne leen lu nekk am ci koo xamante ni ca badrin Hamza moo rey bay taxam mu ni wax si yu boo fexee ba Hamza daanu ak xare buñ mën di dajewaat boo fexee ba mu daanu mooy sa goreel mooy sa goree yow nekkatoo jaam wax si yu comme nit ku ñuul la woon te jaam la woon jamono boobu yàlla tabaaraka wa taala dogal la première occasion bi njëkk a présenté wu première occasion bi rek muy xaswatu uut mu nek occasion bo xamanteni ni dañ ci doon euh, riposte di ci venger wu Hamza nag daal di tëb taxaw xamni occasion bu ko yalla di indil pour mu libre ci goré gis nga yalla tabaaraka wa taala موني يونتي بي صلى الله عليه وسلم عندنا لك غاني نجين ديم خارجي تايتم تي حمزة لا ليبرتي وحشي ورا جار تيالا ما ورانا فرق سيدنا محمد بييفر بوبو بكنو حمزة دو دون لكوي ليبري مو نيك غور مي تيول يالا سبحانه وتعالى yërmandeem yaatu yaatuwaay boo xamante ni li maam Cheikh Seydil Xaaji Maali wax rek ne wa rahmatullahi kull al xalqi qad wasiat min fajirin wa mutiin zahidin baarin waxshi yu non seulement yéefar la mais yéefar bu ñu moom yilif ko la benn mu nekk ci kilifteef ko xamanteni yonent bi rek la bañ ak gayam sallallahu alaihi wasallam yonent bi rek mu jaral ko mu dik ko ni ko soo bëggee sa bop fexel ba xamsatu ammu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam daanu bu daanoo rek tu es libre anta xurrun waaw waaw anta xurrun wa in qatalta hamzata fa anta xurrun boo reyee Hamza rek gore gor gore nga ah moom itam yàlla tabaaraka wa taala jàppale ko ci loolu xoolal liberté Wahshi yu mi ngi jaare ci faatuk Hamza te yàlla tabaaraka wa taala moo bind Hamza boole ko kaawu Seyduna Muhammad bind Wahshi yu ci kaawu yéefar yi waaye teewul nag. li muy metti metti ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam occasion boobu moo waraloon jigéen waaxu dem ba tiim Hamza ak njàmbaaram ak jikkoy gaynde gi ci Hamza mu tëdd ba jigéen mën ko tiim di xotti biiram di génne res wi di ko yéy di ko buusu ci kanam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu yàlla tabaaraka wa taala mooy doxale noonu yàlla seetaan na lu ne yàlla seetaan na lu ne bi loolu amee yonent bi sallallahu alayhi wa boole na lu bari keroog boole na mer ak naqar ak tiis waaw lu tiis ci moom la bàyyi taxam bu jàmbaare lool bu jàmbaare lool di Hamzatu ibnu Abdul Muttalib dugg ci lislaam ñetti fan ñu tek ko ci Omar al-Khattab duggu islam commencé am doole ci ñom la yàlla dogale batu la ilaha illa allah juk ci makkah al mukarrama ci ñom ñaar bi nabi aslama al faruq wa bi summa bihi kana al khuruj li naxwi al masjid al haram waaw génn ànd ak Hamza ak Seydina Omar ak Seydina Muhammad yëkkati laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi waaye bi ñaar ñooñu bi ñu génnee ànd ak Seydina Muhammad ak mbooloo ma la ñuy néew néew yàlla indi na ci ñaar ñoo xamante ni fa tabaarakallahu wecc nañu junni ba leen waa Xuraysh gisee Seydul Xaaji Malik nee na mbetteel leen dal ak njàq rek toroxtaange dañu torox keroog wa zaara xusnun wa zullun واو وذار ذل وحسن ولا حسن وذل يا اخي خريشا ما يظنون ان الامر ذل وذم فوق ني اسلام دينا ديما ديما ديما ديم با يوكو با في اي وحشي مومو دانيال حمزه ابن عبد المطلب تي احد يننتي صلى الله عليه وسلم dem ba yàlla boolewaat ko wax si mu ñëw dugg ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal ko yonent bi jéggal ko waaw bi jéggal ko loolu yéeme na loolu tabaarakallahu lu yéeme la waaye li gën a yéeme dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yonent bi jéggal na koo xamante ni moo gën a garaaw wax ci ñaawteef yi mu daan def te wax si yu mën nañ ni benn ñaawteef boobu rek la def te ñaawteef boobu yàlla dabaaraka wa dab dabaatal na ko ba mu dugg ci lislaam ba rey ki nga xamante ni moo yéesoon moo yéesoon ci jamono jooju muy musaylimatul kazab wax si yu moo ko rey mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam djegal ko djegal kenen ko xamanteni muy hubar ibn al Aswad hubar ibn al Aswad ibn al Muttalib ibn al Muttalib ibnu Asad ibn al Asad waaw ibn al Asad waaw ibn abd al Usay ibn Qusay hubar ibn al Aswad momu yàlla tabaaraka wa taala dogalna mom mo def fatimatu bintu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa zeynab bintu sayyidina muhammad kubra banati sayidil wujudi sallallahu alaihi wasallam sallam waaw la fille aînée du prophète sallallahu alaihi wasallam hubar ibn ibnul aswad momu moko ko def la tabarakallahu feebar bi sabab deem dal ko ndax xam ngeen ni soxna si ginnaaw bu sayduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gàddaaye mboolem ku yonent bi amoon ci màkkatal mukarrama fekki nga ko madinatu munawwara fekki nga ko madinatu munawwara ba ci ñoom Fatima Ruqayya ñoom Umu Kalsum ñoom ñëpp tabaarakallaahu fekki nañu saydul wujudi ba ci situna Aïcha fële ca madinatu munawwara ba mu des zeynab bintu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu des zeynab zeynab yàlla dogal na jëkkëram bu ñu wax laqit rabia ibnu rabia abul aas laqit ibnu rabia moo nekkoon boroom këram bokkoon ci ñi nga xamante ni soldaaru yéefari makka yi la àndoon ak ñoom aboo jahlin dem xare ji ca badar jàmmaarloog sayduna muhammad te moo takk taawu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla dogal mu bokk ci usra badrin prisonnier de guerre yañ jàppoon keroog ca Badar Abul Aas moomu daf ci bokkoon di jëkkëru Zeynab bintu Seydina Muhammad sallallahu waaye booba ñu ngi téye Zeynab ca Makka Zeynab nekkatu fa kenn du benn mbokkam ku ko jige du tànt du baay du sœur du kenn yéefar yàlla fa desaloon waaye bi nga xamante ni wax nañ ni ñi jàpp ci biir yéefar yi ku ci am loo jotee sa bopp mën nga libre non seulement wax euh, abul aas moomu laqit ibnu rabia moomu amul woon lu mu jotee boppam waaye zeynab moo ko yónnee loo xamante ni ci la bëggoon mu jot ci boppam muy diye bi mu mën a jote boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delloowaat loola ci gàttal ni ko nag dinaa la bàyyi nga dem ak condition que ma d'accord ci jullit yi jullit yi nungul ko yonent bi yonent bi ni à condition ko boo demee nga bàyyi nag Zeynab nag mu ñëw nag Abul As ne ko d'accord naa su ma demee dinaa ko bàyyi mu ñëw waaye bi mu demee ba waxtaan ci mbokkam ne leen ah bi ma demee xare ji badarkat bi ma demee xare ji badarkat gàcce naroon na ma fàddal ndax non seulement armée jullit yi dañ ñoo jekku man ñu duma ñu ba jàpp non seulement loolu dal na ma fa mu bokk ci ñuy jàpp waaye ba ñuy jotu ba ñuy jotu man awma woon lu ma jote sama bopp Zeynab mii malgré que baayam la opposé bañ ko contre ko ànd ak yéefar yi dem di xeex ak moom moo yónnee la tax ñu bàyyi ma bàyyi nañ ma nag ñëw naa waaye bàyyi naa fa sama kàddu ngor waxante na ma ak Muhammad ni su ma demee dinaa bàyyi Zeynab mu ñëw kon ma koy bàyyi mu dem fekki baayam ay mbokkam nangul ko loolu xale la woon waaye xale bu amoon kàddu la ku dëgëru du fit mu jël frère am boole kook Zeynab ne ko na nga fexe ba yóbbu ko ba dajee ki nga xamante ni moom la papaam wax ni na ko gàttandu ji nga teg ko ci loxo mu yóbbu ko ma Madina Munawwara loolu nag am ñu mu naqari ci màkkatal mukarrama ci ay góor ak i jigéen ñu ni ndaw si daal buñ ko bàyyee noonu mu demee noonu day yomb trop am ñu loolu nar a soof nara naqari trop bokk na ci ku ñuy wax Xubaar ibnul Aswad nii may wax ak Naafi ibnu Abdul Qays ñaar ñooñu daal ñoo lal seen pexe ni ndaw si suñ ko bàyyee mu demee noonu day yomb ñu tëru ko ci digg àll bi ndaw si war ci giléem gi ci xaw dëj bi bi soxna si demee ba leen di dépassé bu bari ibnul aswad moo moo di rek fitti giléem gi tay jam ko giléem gi sukk giléem guy dox ak allure nga fitt ko mu àgg suuf jigéen ne ca kaw na muy àgge suuf man naa gaañ jigéen ji fekk na Zeynab mu ngi ëmb jamono boobu ba yàlla dogal ëmbam ba keroog foofu la jaare yàqu non seulement ëmb ba yàqu na waaye keroog li mu sañee bari na maa euh, kenn mun la ko wax li mu tuur ci deret bari na bi muy dugg ci loxo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidul wujudi sallallahu gis ko muy doomam di deretam mu gis ni ndaw si am na gaañu gaañu non seulement mi ngi woon ci état de grossesse la mu ëmboon def na avortement waaye ndaw si jëlee na ci gaañ gaañ ndax li mu sañe bari na keroog rasulullah yi mënul woon a téeran xooñam yi biraan keroog sayduna muhammad mënul woon a téeran xooñam yi waaye yow nag loo dëgër dëgër dëgër dëgër boo gisee ñu def loolu sa taaw bu jigéen dina la naqari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boolewaat muñ tée doomam di faj waaye teewul loolu mooy feebar bi nga xamante ni moo faat Zeynab mi nga xam ne mooy taawu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye teewul Hubaar ibnul Aswad moomu ginnaaw fatxu Makka xam nga laa xijra baadal fatxi loolu lañ wax laa hijra laa hijrata baadal fatxi ginnaaw fatxu makka gàddaay amatul woon ci la gars yi doon ñëwee par vague nag di tuub di dugg ci lislaam am na ñoo xam dañ doon daw di dugg ci lislaam ngir rawale seen bakkan ngir rawale seen bakkan ndax yonent bi joxe woon na ndigal ni am na ñooñ fu ngeen leen fekk na ngeen leen rey Hubaar ibnu Aswad moomu sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa joxe woon digal ni fu ngeen dajeek moom na ngeen ko taal taal na ngeen ko taal ba mu tàkk ba jeex ba ci yàgg mu ne ah déedéet bu leen ko taal ndax kenn amul kenn amul sañ-sañ sañ-sañ mbugal nit ci sawara ku yàlla waaye daal bu ngeen ko gisee daal na ngeen ko rey xubaar dégg loolu waaw لا لا لا لا كعب نسوي وعن نبيت أن رسول الله أو عددي والوع والعفو عند رسول الله مأمول <laughs> دابا دغوني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيت واو جي اتي انفورمي انفورمي نان ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم داف ما تكو داف ما تكو مناسي نما تكو نما مي ماي وير واي نك ما خم نماي ديف نون كو نوي ديف موني ديم باتي موم نيكو بالما واو نون كو موني والعفو عند رسول الله maamul waaw mun ne njëggal ci yonent yàlla Muhammad lañ ko yaakaare njëggal ci sayyidul wujuud lañ ko yaakaare moo tax ba mu demee moo jàkkaarloog rasulullah te rasulullah xamul ni kaab la te yonent bi nee na fu ngeen fekk kaab rey leen ko mu ne ko est ce que bu kaab ibnu soyru ñëwoon ci yonti ci yow yonent yàlla Muhammad di la baalu di nga ko baal yonent yàlla Muhammad ni ko ah, baal bu demee nag mun ko su ñëwoon dikk dugg ci lislaam di nga ko ko nangul yonent bi ni ko damaa moom lislaam ku dugg ma baal la ma ma nangul la mun ko man may kaab ni ko jàbb loxo ni ko ashhadu an laa ilaha illa wa annaka muhammadun abduhu wa rasuluhu daa ni teg yàpp rasulullaay di ko way di ko kañ di ko joxe jikkoom ba ci yàgg mu naan ah, ah, ah, ndeysaan maam cheikh baat bayit ba nu ma demee inna rasula inna rasula la nuurun yustadaa bihi muhannadun min siyofillaahi maslul waaw ba mu koy wax yonent yàlla muhammad ba muy tagg yonent bi ba ag ci bayit bobu nabi mënatu la muñ ta xolal yefer bo xamne ne lu ne wax nako rasulullah ci lu ñaaw lu ne wax nako sayyiduna muhammad ci lu ñaaw bi mu deme ba ag ci lolu rek nabin sumet manto ba solal koko solal koko may koko tabarakallah tabaarakallaahu hubar ibn al aswad ba mu déggee ne sayyiduna muhammad neena na nañ ko lak ba ci ak mu ne bu kenn lak kenn bu ko kenn lak ndax yàlla rek yayoo mbugal jaamam ci sawara waaye rey leen ko bu ngeen ko gisee fu ngeen ko jàpp rey leen ko ak ñeneen ñu mel ni moom bu Mubarak ibnul Aswad dafa daw dugg Madinatul Munawwara dikk ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuub dugg ci lislaam commencé di expliquer Rasulullah sa alayhi wa sallam ne ko waaye man de fàtte naa la nga defoon comme dugg nga ci lislaam fàtte naa ko dégg nga wax bi fàtte naa loo mos a def ci lu ñaaw ndax baatu ashhadu an laa ilaha illa allah dafa am poids boo xamante ni bu xasee génn ci làmmeñ yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na la ca xol ba man xoolatuma ko waaw waaw an nutqu bi shahada laa mën a wax man man ko témoigner xol nag yàlla moo koy mën a contrôler mbiru yàlla la daal di koy jéggal am benn jigéen bu commencé di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko eh baal jàmbur la mu defoon loolu lépp nañ ko fàtte te jàpp ni aswad ibnul xubaar xubaar euh, ibnul aswad mi tey jii bis ni ki tey ci ñun la bokk ah bi sallallahu alayhi wa sallam googu mu sax fu mu tollu daan ko def ñeewante gi mu amoon ci jullit yi ñun suñu moroomu jullit yi war nañ ko am ci suñu digganteeg moroomu jullit yi nañ ko am naga ni waroon na fekk fii ñu toll la def suñu mbokk yi fële fële birmani Birmanie waaw rohingya yi lañ leen di def ci lu ñaaw di leen jàpp di ndax c'est une minorité musulmane parmi les bouddhistes voilà au milieu des bouddhistes ñu jàpp leen di leen rey rayen wu ñaaw rayen wu ñaaw li jaadu man boog te ma gëm ni loolu lu jaadu woon la nëgën ni warana naa fekk journaux yi wala télévision benn bis ñun nii tey tiwaawan la ñuy daje sëriñ bee woote adduna bépp seetaan ni tey ni ñu wootee gàmmuk tiwaawan wala ni ñuy wootee ziar général moom la ñu wootee tiwaawan dañuy naqarlu la xew fële ca ëllëg sa ñu dajewaat ñu ni Sénégal lu xew ñu ni Touba Mbàkke woote na lu fa xew ñu ni nañu dem wuy ji ñu def déclaration adduna bi yëg ni le monde musulman sénégalais am nañ lu leen naqare ci li dal seen mbokk yi nga xamante ni mooy nga yi fële ñu leen di lakk di leen daggat farmoso di leen suul vivant di leen suul ñuy dund te dara waralu ko lu may gëm nañu yàlla gëm nañ ni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent yàlla bi segam Macron moo mën a taxaw di def benn déclaration boo xamante ni day wane ni lii ñaaw na sàkkantumaak ñun sénégalais yi nga xamante ni mais am nañu ñu naqarlu ci Sénégal mais surtout minorité ñu naqarlu ci Sénégal minorité la bii la te jaadu woon na suñu président de la république bu réew ah, lu lu lu lu lu ñu defoon ci moom lu ñu tuddoon ci turu boppam rek moom turu turu boppam ci lu ñaaw rek lu ñu ci tuddoon ci lu ñaaw lu mu gàtt gàtt rek nga gis ay niti boppam jug dem jàppi ko faj ko ñu def loolu ci islaam ragal naa ni jamono bii war a nëgë ni waroon a fekk tabaarakallaahu suñu gouvernement bi ministre yëpp gën naqarlu ko député yëpp gën naqarlu loolu ñu wàccal seen bopp ci mbedd yi taxaw ni lii naqari nañu ndax nag ñun suñu teraanga ñun waa Sénégal jàmm ji fi am ñun civilisation bi ñu am ci islam moo ñu ko may soppante bi jàmm ji bëggante bi dimbalante bi ak cofeel gi ñu am ci sayduna muhammad ak barke saydul wujjóot di dong moo ñu may loolu kon war nañoo delloo rasulullah njukkal nit ñaa ngi jóge màkkatal mukarrama ñi def nganale ñi ngi tëgg ñi ngi woy la amoon bousculade bi amoon mun naa fa amee at moom dañ ni bu kenn def dara mais ren rek la ñu taxaw ni bu kenn def dara bu kenn nganale Sénégal bu kenn yëngal dara ñu naqarlu la xew fële la def suñu mbokk jullit yi iaanatul mazlum dafa baax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa daf ci wax iaanatul mazlum mooy secourir dimbali ki ñu tooñ ki ñu ëpp doole te tooñ ko biraan gis nga yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ñu musaan tooñ wax ko ko ku ñu musaan tooñ mu dugg ci noppam donte ki ñu tooñ yéefar la sax mu dikk def def def def demande d'intervention ci yonenti yàlla muhammad nabi na soldaalam dem dem dem taxawu ko benn waaye ñëw na màkkatal mukarama jóge ci all bi di arabi di def commerce jaay ba jaral ab boo jëlin say saay bi dem confisquer alalu jambour dëpp ko dole nangou ko waa tok toog di doxandéem yoratul dal amatul fumu jaar ba ñibi il était dépourvu de tous ses biens légui nak dépourvu de tous ses biens mo taxaw nak xamul nan lay def mu xalaat am ku ni ko demal ci mohammed am ko romb ni ko demal ci mohammed mu ni kuy mohammed ñu رسول الله ndawul yàlla li mi ngi fi de moom la yàlla yónni boo demee boo ko waxee mu taxawal la ci waa ji bi mu dikkee ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di katkati di lox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj lan la mun ko aboo jahlin la mun ko lu xew mun ko axasa mali kullahu jël sama alal yépp sama alal yépp la jël yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ni ko lu la tax a ñëw nag dangaa bëgg ma wutal la lool mun ko déedéet dama bëgg ku ma ci dimbali mu delloo ma sama yëf na bi ni ko ah kay daal ni bëgg Seydina Abubakar Siddiq ne ko bul dem mi ngi ci xaylu la ba fekk mi ngi def geste sieste yooyu sieste digg bëccëg la war a digg bëccëg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi muy jóg di dem daanaka sollu woon dàll te Abu Jahlin kilifa la digg bëccëg mu nekk sieste rasul laay dem di fëgg buntam këng këng <laughs> الله أكبر أبو جيل كيرك دفا جاهل كو ورا دف لي بوج مو جوجل بوبم مون كو كوكال لا نبي نيكو اوبيل موني كاتيت اوبي رسول الله نيكو مان لا انت انت اغسط ما لها ما لها هذا هذا الاعرابي يجل على الواجي مون كو مون كو رد رد اليه ماله دلوكو على لم دلوكو على لم خول رسول الله نوي واخيك موم ها أه؟ aboo jaxlin commencé naan ko mu munoo woon a yónnee rek munoo won a yónnee naaj bu tàng na bi ne ko eh maay ñëwal sa mbopp jox ko alalam aboo jaxlin dig ni nañ jëm jël alalu waa ji jox ko ko nañ jël alalu waa ji jox ko ko bi ñuy dem di ko jox alalam ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko jot nga sa lépp mun ko des na benn chaîne des na benn chaîne chaîne wurus xoolal yonent bi ni ko waaye eh, jox ko jox ko chaîne am Abu Jahlin moo dawal boppam songu néeg ba di ko seet seet seet gisu ko mu génne beneen ni gisuma boobu ndax dëgg bëgg na bi waa Rasulullah ni ko ko mun ko waa bëgg naa mun ko jëlal te dem jëlal te dem waa ji dem Rasulullah di ko woon ginnaaw mu dab Seydina Muhammad nan ko xaar ma yaa tax ma jot sama alal nabi ni ko bëgguma ci dara mun ko xàkkay bëggoo ci dara waaye ki tax nga def lii mooy sa borom tabaaraka taala dañ ni moon yaay ndawul yàlla te gis naa ko ci yow ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka muhammadan abduhu wa rasuluhu waa ji daal dugg ci islaam ci saasa ah xoolal loolu rek bi yàlla tabaaraka wa taala dogalee loolu am jabaru abu jahlin naan ko wallahi ya aba aba jahlin tawaadaata li yatimi abi talib cim yow ji girimu abu talib bi tax ngay ngay ngay ngay kot koti yow billaay yaa ma bett mun daay mu naan ko wallahi Abu Jahal naan ko wallaahi law raaytu aytu soo gisoon li ma gis soo gisoon li ma gis doo waxee noonu mun ko gis naa ni jamono bi nga xamante ni mun ko xanaa xamoo ne bi Muhammad naan ko bi ma Muhammad naan jox ko alalam dama ko nar ni ko joxuma ko dara waaye ñaari gaynde laa gis ñu mel ni dañoo taxaw ci kaw mbaggu rasulullah nar ma nar maa lekk ah yàlla tabaaraka wa taala boo gisee maam Cheikh di nga gis koo xamante ni yowmal qiyaama dina am problème ak dëkkandoom ndax li ñu tuddee i'anatul mazlum dafa wàcce ak moom mooy dimbali tooñ ku ñuy néewal doole. am na ñoo xamante ni ci seen kër lañuy nekk nekk ak seen dëkkandoo dégg wuyooy ñu ngi may agressé nga xëccaat sa mbaj gi gën a tëjaat sa néeg ah maam Cheikh da koy def ba Birane nee na maam Cheikh da koy def. loolu loolu dafa yeme de non non biran Birane moo ni maam Cheikh da def mani mam Cheikh biran nee mam Cheikh da def xama gëm naa ko xaw ma gëw ma ko def itam bay ba nga xamni ku yor jikko yi Cheikh sid Ahmed Tidiane yor trondo sa borom gaynde Njaay woro defé nonou woro defé nonou defee noonu sa turandoo al maktuum al khalifa daana fajal nit ay ranqooñam di tekki buumu buumu njaam ci tànku jaam tànku ku ñu nar a néewal doole fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqina wala léeg-léeg nga gis romb ci oto ci oto oto oto laa wax de digg bëccëg ay góor ne ci oto ñaari góor taxaw génne paaka di sonal kenn ñu taxaw courage seen bara ne sëdd ni yàgg ah loolu loolu loolu nan la mën a nan la mën a nekkee nag lu mat fukki góor ci benn oto xanaa kenn kay kay bu ñu la dee jam nag bala ñu laa gi nag ñeneen ñi egsi waaye taxaw ñu néewal doole kenn jël saagam te jigéen ñi la ñuy gën a néewal doole te jigéen léeg-léeg bu duggee ci oto bu fitam dalee rek dafaa fekk góor gu mu am yaakaar ci moom ah kon nañu xoolaat nan lañu ñu war a mën a àndewaat suñu biir di dimbalante te yàlla tax di walloonte te yàlla tax di and kenn ku ci nek li nga yene sa bop nga yene ko sa morom te ñu bayyi xel nak suñu mbokk julit yi dañ leen bayyi xel bu baaxa baaxa baax waaw bu tabaski jotee tabarakallahu ahsanul khaliqina ndimbal yi dina bari bu gàmm jotee ndimbal yu bari waye fi mu war bari mën deug deug moy dëgg sa mbokk julit bu nek ci rew mo xamanteni ñang ko fay neewal doole ndax du dara lu may dafa gëm sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam te xolal xolal xolal xolal sen premier ministre bobu nga xam moy jigen jigéen ji nga xam ne def lu ñaaw teef yu ñaaw yoy ñom ñooñu birmani dañ ko décerné won prix Nobel de la paix dañ ko joxone prix Nobel de la paix mom lañ ko joxone ndekete yo booba du dara lu may limu bëgg bëgg jamm ñim bëgg jammol du julit ñi du julit ñi la bëgg jammol ñi bañ diine te bañ islaam la bëgg gën a jàmmool fa tabaarakallaahu loolu doon loo xamante ni ñun ñëpp kenn ku ci nekk maam Cheikh war ngeen ci dolli ay waxtaan ci seen ay émission su ko defee itam ñu nag ñu mel ni ñun tamitam fu ñu toll a ah, di ci wax lu ñu man fa tabaarakallaahu ndax jot na kenn ku ci nekk foo tollu bu sa maat baat ma ne jóg man raa minkum karan fal yuxayyirhu bi yadihi fal yuxayyirhu bi yadihi maam Cheikh Biraan ah ah waa ndeysaan tabaarakallaahu ñu ngi koy fay armée musulman armée Sénégal bi armée Sénégal ay jullit ñoo fi ëpp ñu dut jullit soldaar si ah? wala du et pourtant nous lay ñu front intervention des interventions moins intéressantes moins importantes que nous jóg dem dem ci Birmanie taxaw ndax président Turquie bi bi doolu xewé mom dafa juk des armée mom dem taxaw ni mom islam ñor nako tay wax nañ ni suñu président dina wax ci lu mel nonu nañ ko deglu tabaarakallahu ahsanul xaaliqina su ko defee réew mi réewu jàmm la réew mi réewu jullit yi la ñi ñu ëpp doole ñi ñu ëpp doole du wax naa ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax wax waxuma nji njéggalu waxuma ne yonent bi daan jéggale ah mais ku kuy roy yonent yàlla muhammad war nga mën a jéggale ñi ñu tooñ wala ñi tooñ sax ñu def leen ci kaso bi bu dee ay nitu politik lañu nañ leen bàyyi ndax kay woote ci wàllu politique defar la bëgg te it bari na ñoo xamante ni ñi ngi ni xiim waxuñu de te jombul am na ñu ñu tëj ci kaso bi mus nañoo jaar ak ñoom ci teraanga joo xamante ni defal nañ leen teraanga ñiy def lu baax di ko wax ñu ne ay communicateur traditionnel na lu kenn ku ci nekk mus ngaa dem ci bureau koo xamante ni mi ngi ci biir kaso bi mu defal la teranga pourquoi pas ñu génn te bu lamb ji jotee ku ne wax di tag nii nangam ak nangam te kuñ ci xas jàpp néewal la doole ñoom duñ ñimee génn wax te amul ku ci mën a waat ne boo demee mus ngaa jaar ci bureau mu génne teranga teg ci sa loxo man duma pro kenn pro sayyiduna muhammad la sallallahu alaihi wasallam waye nak am nañu droit suñu déggé asakitu anil haqqi shaytanun akhras micro bi ñu yalla dal wërsëgale ni wax laan ci jaam ñi man nañ cee wax loo xamante ni fa tabaarakallaahu donte sax suñu baat mënut a dem fenn ñu wax ci li nga xamante ni moom lañuy dund sentimentalement mu ñu génne ko émettre ko muy dëgg ku ko dëgg xam ne lii dëgg la te mi ngi àddoo ci baatu safina yal na yàlla boole ñu defal jàmm yal na yàlla boole ñu defal sutura bi jaay taaha moon naa sama gaañu lool nag tabaarakallaahu namoon naa leen lool lool lool namoon naa tabaarakallaahu imam Abdullah yusfal ya, imam cheikh ahmed tidiane ndaw pape makhtar silla mam cheikh nam mako won mam cheikh nam mako won namon na ndaysan tabarakallah imam shayba waaw bubakar mbodj biran mala rawon billahi tabarakallahu ahsanul khaliqina ben way neena ma del wax ñom biran ñi tok yow boy waxtaan man ko lutax mun mu bo nekké ak ñom di waxtaan ñun boy wax day mel dañoo jakarlo télé di sétane ah waye <laughs> Ah, Masya Allah taala lii ak émission bi ñoo binyo waaw du ñu génn cadre wu wax li nga xam ne mën na jariñ doomu aadama yi mukk ndax suñu sëriñ suñu PDG sant ñu lu may wax lu baax boo dee wax dëggit na ko wodd woddin woo xamante ni dégg war na ci mën a jariñu te xam ne lii dëgg la muy kon Samba nga yëkkatal nu busra laqat ni nan mën boobu rek ñu